alaykum suñu mbokk internet yi nuyu nañ leen niñ koy defee saa su nekk ci seen bi émission Zap série toujours ak seen rubrique revue de série revue de série nag tey tànnal na leen trois séries yo xamné dañ ko fas décortiquer ñu tambalé ko ak série bam nga xamné mom moy mbettel mbettel nak bu ñu jog ci saa su nekk dañuy indil ay mbettel ki di nday jaay kat dafa biir ba ca nopp ya té kiko biiral du kenn ku dul lay lay lay lay mi nga xamné moko moo tuddu ko ngenté ko aka wo bët ci xalé mom nday jaay moomee nee néna fàddaam sa jëkkat kat dañoo amurante Papa Diouf na jamono ji boko ko bâtiment sax du yëg diisaay ba ndax problème problème yu mu nekk huissier nak ñëw na saisir alalam bima amone yépp li la olaf ndjay naan yalla tay xalé bu goor la lew le rek la lay fay lebtoo faytoo leena nak abal nako kërëm ñu ne deet mu ñaan ko baat dafa melni nak akru àqru bësay moo leen di bëgg dal ci sama waja Alassane mom dal moy ndaanaan ki nga xamne mom moy Ousmane kan lembe dekk bi jaxé ko sonal ñëpp fi tolni nak mi ngi ci diggante du ndak dee ginnaw bi mu paralyser te ki jog ci ay mbiram du kenn ku dul Alassane mais Teresa nak mo am vrai mbettel ndax ki nga xamne mom moy taala xolam dem na ba découvrir ne ndekay taala agresseur la Papa Diouf nag fi mu toll ni avoué na ne moom moo rey yaayu Amina gannaaw loolee la ko Rouba Seye enregistré woon problème bi mooy ndax Rouba say daf koy dénoncé wala daf koy baal bu ñu jógee ci mbette ñu jàll ci série boobu nga xam ne moom mooy cyber jamono nekk série bu bees boo xam ne day yeete ci wàllu réseaux sociaux kii di Badou nag xëyul gontul deful lu dul yor ordinateur am ci biir néegam créé benn page Facebook tudd ci Marie Ndiaye di teg dil yu amul fenn dil yu set kii di Fatou nag jot na wàllam ginnaaw bi ko Badou laaje woon ay photo nuyu mu envoyé ko ko jamono ji Badou chanteloo ne ko ñu ne déet mu viole ko problème nag nar na am ndax kii di Fatou dafa war a sëy te fi mu war a sëy ndeke du fenn fu dul kër ñoom moo moomee ko violé woon ndax Badou ak ki koy takk ñoom ñoo bokk benn baay ndax dafa war a wax li am wala daf ko war a noppee ci réseaux sociaux yi ay ku leen tuut bu ñu jógee ci série boobu nga xam ne moom mooy cyber jamono ñu jàll ci destin du cœur destin du kër nag kuy wër góor gu jege ba yem ci aas neen nuus téye ndax aas kat jamono jii bardeloo na Louise miirloo na ko mais problème bi am mooy papay aas daf ko bëgg a may soxna Louise tamit ay waa këram dañ ko bëgg a may jëkkër mais ku ci nekk nee nga say waajur am na ñooy bëgganteel li ñu naan destin la ndeka ñoom ñu ñu bëgg a ñu yàgg te ñoom ñaar ñooñu lañ fas yéenee maye kuy wër destin na ba egsi ci destin du cœur jàppal yéen mbokk internet yi fii la ñuy yem ak yéen ba prochaine fois mais laataa ma tàggatoo ak yéen du ma def lu dul ñaax ngeen abonné ci suñu chaîne YouTube Afriseries ndax ngeen mën a jot notification yi à temps jaa ngeen jëf.